événement la boo xam ne ay at a ngi nii ci gannaaw yaakaar naa ne mësuma koo tardé tey nag xatoon na lool sama boor ci Dakar waaye dama ne rek dinaa def sama kémt lay kattan pour ñëw teewee ko même bu dee deux minutes ndax dafa nekk événement boo xam bu amal solo la ndax dama ko seex ak ay gor ay jaamu yàlla yu baax te ku ko jiite di yaa Seyda yaa Seyda ñoo lay gërëm di la sant bi nga jàppee ba léegi bàyyi woo xam ngeen fi événement bi gënoon naa métti nii waaye nag ci say ñaan yu yaa Seyda ak ñaanu ñu ñu baax ñu fi nekk ñëpp jàpp naa ne vraiment yàlla mu ngi sàng sutura yàlla na jëm kanam ñu bokk ñu ñëpp incha allah di gërëm aussi kilifa diine nekk biir Kaolack yëpp ndax lu jig ñàgg ñooy ñàgg ndax bu ñu demee ba mën saawatul Faatiha mën Faatiha ban eh, falax ak naas yàlla ak ñu mag yu baax yi nga xam ne ñoo ko fi sanc ñoo ko fi ji ba ñu mëntee jot kon noog yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla dafa leen teraanga xew xewul bëree bëree bëri ngeen aussi gis nañ liggéey bi ngeen def biir Kaolack waaw parce que euh, éducation la adduna dafa am quantité dafa am qualité waaye qualité éducation moo ak yar qualité nekkul lu ñuy wàññi waaye waaye lu ñuy yëg la te loolu am nañ yàqin na ci la nekk yéen yéen ay tarbiya doomi jaamu yàlla jaamu yàlla ak doomi aadama kon yàlla yàlla guddal seen fan waaye nag balaay dara aussi ngeen may ma ma taxaw ci jigéen ju baax koo xam mag la ci man koo xam ne lu jig ba su mu ne taxaw tax def ak la ci la ko jaarale madame la mu vraiment euh, sama sama mag

ay jëfam ñoo gën a ñoo gën a bëri ay waxam kon nag Mariama yàlla yàlla guddal guddal ay fanam nga ñaanal yàlla mu aar ko vraiment sànq ko muur ko yiir ko moom ay njabootam ak ni muy àndal ñëpp kon Mariama yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla aar ko événement bi nag euh, vraiment événement la boo xam ne yàgg nañ ko def fii ndax dañu baaxoo woon weeru koor bu ne ñu oo yaa Seyda vraiment mu nafar mu nafara ñu suñuy téere jàngal ñu ba mu nekk genre stage suñu waaw moo tax mënuma koo tardé te yàlla xam na ne ay xar-xar yu métti laa nekkoon ndakaar waaye su ma xalaatee démb rek xool événement am nu mu doon demee démb ma ne kii mënuma ko tardé moo tax vraiment j'ai tout fait ah pour venir directement ci événement bi. ñu façon yéene nag ganaar bi nga xam ne dañu jaamu yàlla euh, teral vraiment euh, sëriñu daara yi kii commencement rek la ah indi naa fi 1762 kaamil yoo xam ne ma jàpp ne xëy na ceeb baax na diwlin baax na waaye kaamil defe naa dara du moom. waaw te tamit jàpp naa ne xale yi comme dañuy gën a bëri si da ci daara yi imaam yi des dañuy sonn vraiment pour jël leen en charge ci wàllu kaamil yeeg yooyu moo tax ma ne ren nañ fexe def suñu suñu loxo tuuti ci wàllu kaamil waaye commencement rek la ndax xam nañu éducation lu yaatu la wàllu bi ñu ma dénk aussi te nga xam ne moom mooy ONFP office national de formation professionnelle dañu tàggat xale ci ay métiers waaw dañ euh, bëgg nañ aussi am euh, lënkaloo ñu nag daara yi daara yi Kaolack yi parce que am na programme yu rëy yoo xam ne am nañu ko pour euh, pour daara yi ci wàllu tàggat xale yi ci informatique en arabe ah tàggat leen ci lu nga xam ne ay métier la parce que xale yi aussi euh, dañu war am liggéey di ko booleeg jàng bi waaw ah, te loolu lépp am na ay programme yoo xam ne dañ ko ficelé ba pare au niveau de l'ONFP dama ne woon bu koor gi passé dinañ ñëw def tournée waxtaan ceeg yéen lépp li nga xam ne seen xalaat la vraiment ñu échange ak yéen lépp lu ñu mën na ñu def ko jottale kàddu sëriñ daara yi fa tabarakallahu kaamil yi nga xam ne moo nekk ci sama kanam di junni kaamil ak juróom-ñaari téeméer rek lu topp lépp nu ko yéene tasaare ko jox ko sëriñ daara yi buñ demee ñoom itam ñu jàllale ko ci xale yi loolu nekk ne yiw woo xam ne yàlla mën na leen cee defal shahaadata daara yi ni texe fii ci àdduna ak texe ëllëg yawmal xiyaam yal na leen ko yàlla defal ah lépp loo xam ne nit ki mi ngi koy def ngir tamit yàlla ak yonent bi insha allahu yàlla subhanahu wa taala moom moo koy fayal boppam ndax wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yuraa doomu aadama bi amul dara lu koy jëriñ ëllëg lu dul lu mu jëf lépp lu mu jëf rek dana gis ëllëg yow mal xiyaam yàlla subhaanahu wa taala dana ko ko fay te fayu yàlla bokkut ak fayu mu néew kon daal eh, ñu ngi sant kii di maniru li ci taxawaayam bu rafet ak bëggam lu baax ak bëggamu alquran ba tax mu fas yéene def lii mu fas yéene def ànd ko ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaawam ñëpp ndax damay wax ni benn loxo du tàcc al yaddu al waaxid laa tusfiqu benn loxo du tàcc mukk wala fa ñaay ni lu kenn mën ñaara ko ko dàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu al jamaatu rahmatun alquran nañu wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo encore une fois wa Kaolack di leen xamal ne politique bi nga xamante nii la DG Mounirou Ly moom lay def mu nekk politique de développement mu nekk politique boo xamante nii saa su nekk dafay bàyyi xel askan bi te du ci boole coow lu bëri parce que tey ko war naa ko sama njëlbeenu kàddu mère Dieynaba Camara muy présidente des femmes dafa am lu am solo mu am benn conférence chaque année mu du ko def daaw ñu ñëw fi comme ni ma ko waxee yeneen at ñëw fi ren ñu ñëw fi joxe si lu toll si 1760 kaamil alxuraan séddale ko mbooleem kër rakwaay yi nga xamante ñu ngi fii di yëngatu ci wàllu jàng ak jàngale te sëriñ daara yii mën koo firndeel kon donc loolu dafa am solo di leen rappeler rek ne politique bi ñuy def képp koo xam gis na ci boppam. Nous, encore une fois nous rappelle son excellence le président de la république M. Macky Sall jàppale ki nga le ministre Mariama Sall, qui est bi nga ministère de la formation professionnelle.